mais lu am solo xam nga lan la c'est très simple mooy ñun xam nañ ne depuis que Macky Sall mi ngi gouverner depuis 2019 ba léegi sax laay wax par décret la Macky Sall gouverner Sénégal du n'importe quoi loolu ñëpp xam nañ ko xam nañu c'est un lâche xam nañu justice amu fi chaque fois day instrumentaliser justice bi pour def lu ko neex léegi nag peuple bi dañoo xam comprendre ñan ñooy ñi leen mën dimbali ci yaakaar bi ñu am pour Sénégal suba mooy ñi nga xam ñoom mooy Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko mii nii c'est très simple loolu kese la justice bi Ndiaga Diouf justice bi ay Ndiaga Diouf ay c'est loolu ngeen baal ma ko yàlla na ko yàlla yërëm mais ay waajuram sax war nañu war nga xoolaat léegi li am solo lenn kese la message bi ñuy wax mooy ñun ñu ngi fi ñun ak ñoom bëggee fer on va sauver ce Sénégal Sénégal dañ koy defar Macky Sall suy génn pale bi ay tànkam ñooy jiitu ci biti loolu kese la amul beneen déclaration